asalaamaaleykum mbokki internet yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen baal leen àq baal leen àq comme ni topp ak ak comme niñ ko daan defee ak yéen ñun ak yéen la ba léegi ñu ngi ci màggalu sëñ sooy bu Mbàkke seet si jënd jëmm joo xam te ni di seen laat say moom sëñ sooy waaye dañ fee fekk ñenn ci ay Mbàkke Mbàkke ñu fekk ci bis bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ñu leen di fay bu baax a baax ñoom site di leen ñaanal ñu gën a ba mboolem fi ñu dégg ci ko internet yëpp ñu dégg leen di nuyu bu baax ak siyaare suñu sëriñ si ñëpp laxam bokk di ko siyaare ci bisu maamam bi di ko ñaanal suñu borom ñu bi te lépp lu mu ci def suñu borom ñaan ko ak mbokk taal bi yëpp ñu sant bu baax a baax yéen ñu rafetlu bu baax seen liggéey waaye fekk la màggalu sëriñ sooy bu Mbàkke fekk la tamit ci ëtt sëñ Seex Say waaw man moom sama lépp day kër Serigne Cheikh sama lépp di kër Serigne Cheikh Sall sama buntu fii nag mooy Sëñ Abdou Lahad Mbacké borom leeru moom Sëñ Tuubaa ñu booleel boppam waaw sant bu baax baax mooy ku baax wax dëgg yàlla la rek dem fi sawar bu baax baax ko moom noo gisee màggal gi ak mbooloo mi ñi nga xam ne tamit dañoo bàyyi seen lépp ñëw ci màggal gi waaw lii ah, di ko rafetlu bu baax a baax di ko rafetlu bu baax a baax di sant mbokki taalibe yi yëpp rek tey rafetlu bu baax ni ñu àndee ak sëriñ bi bis bi ñu ngi ciy sant ko rafetlu tey ñaan sëriñ Touba mu nangu ko bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf. ba léegi ñu ngi taxaw ak kenn koo xam te ni sëñ Moustapha Mbacke la di xaritu sëñ Abdou Lahad Mbacke borom leer yi tey di màggal ak sëriñ Soy bu ñu gis ne nag gis bi moom ala daaw ba lool lool lool lool dañuy bàyyi nag mu nuyoo sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. waaw Cheikh bi ñu ngi leen di delloo ziar bu baax di leen ziar ci bis bu tedd bi di leen sant bu baax ci seen teewaay jërëjëf. màggal sëñ Sohaibou bu màggal lan mooy lan mooy màggalu sëñ Sohaibou bu waaw màggalu sëriñ Sohaibou bu ci weer wu gën a tedd ci weer yi muy soxru Ramadan ñu ciy fàttaliku sëriñ Sohaibou bu Mbacké ci gane addinam ak dellu addunam lépp ci weeru Ramadan la ko suñu borom dogal ñu ñëw ci bis bi nag di barkeelu ci jëmm ju tedd jooju te di ñaan suñu borom bépp ñaan buñ fi def wala bépp taxawaay suñu borom nag ñu ko ndax sëriñ Cheikh Say Serigne bi day kenn ci njabootu sëriñ Touba bi Serigne Touba fonkoon ko lool mu nekkoon ci li nga xam ne Serigne Touba nag moom la ko bàyyeel muy jàng alxuraan ak di jàngale. tey jii di ab bisam ñu ñëw di ko ànd ak mbokki taalibe yëpp di ci santat sëriñ Touba waaye nag di ci fàttaliku jàmbaaram ju tedd jooju di Serigne Souhaïbou Mbacké di ñaan suñu borom dolli ay leeram te taas ci barke mais tey li ñu gën a jaaxal dañu ñëw fekkaat ko ci ñuy defaat màggal gi ci ëtt sëriñ seex Say lu waral loolu. waaw Serigne Cheikh Say day tawub Serigne Souhaïbou Mbacké te mate ko sëkk taxawaayam ci yoonu Mouride ku nekk xam. muy jàmbaari Serigne Touba am pastef lool ci yoonu murid tey bis bii su jotee ñu ciy fàttaliku waajuram wu tedd woowu Serigne Souhaïb kon dañ koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér ñu yàgg ko fee fekk te di ko ànd ak moom. ñu gis ne mbooloo mi bari lool taalibe yi ñëw ñuy sikkar di tudd turu yàlla en tant que ban yëg-yëg nga ci am ci lool. waa bis bi ak tudd yàlla ñoo ànd. bis bi ak jàng alxuraan ñoo ànd waaye bis bi ak jàng xasida ñoo ànd ndax borom bis bi ci loolu rek la nekkoon di jaamu yàlla di liggéeyal sëriñ tubaa di jàngale alxuraan ak di ko jàngale. kon bis bi bu jotee ñu ciy tudd yàlla di ko ci fàttaliku du bett kenn di ñaan suñu borom bépp ñaan buñ fi ñaan wala ñu sikkar ko fi wala ñu jàng ko fi suñu borom nangu ko ñu ñëwoon nag ci doomi Serigne Cheikh Say. moom Serigne Souhaïbou di Serigne Abdou Lahad Mbacké borom leer yi di suñu xarit di suñu wóllëre di suñu lépp tey jii suñu teewaay ci bis bi mooma di ñaan suñu borom dëgëral ko bu baax ndax ku nekk xam na liggéey bi muy liggéeyal maam ku nekk gis na liggéey bi muy liggéeyal baayam muy Serigne Abdou Lahad Mbacké di ñaan suñu borom dëgëral ko yàggal ko fi dolli ko kàttan ba bis bi nii mu koy taxawalee maamam ñu yàgg koo ñëw di ko ànd ak moom jërëjëf ba tey ñu ngi ci ëttu sëñ Abdou Lahad Mbacke borom leer waaye dañ fee fekk kenn koo xam ni di sëriñ Saliou Mbacke di jëm sëñ Saliou Serigne Saliou Boussa di jenn jëmm joo xam ni yaakaar naa ne nag ku gis sëñ Abdou Lahad Mbacke borom leer da nga ko ciy gis Serigne Saliou Boussa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem waa site bi yëpp. si bis bu màgg bi ñu nekk mooy bis bu màggalub Serigne Souhaïbou Serigne Souhaïbou doonoon koo xam ne nag daanaka kenn la woon si njabootu Serigne Touba si nekkoon koo xam ne daan dundal lislaam daan yor ay daara di tarbiyee loolu la Serigne nekkoon tey bis bi ñu koy fàttaliku nag di bis bu màgg di bis bu sell si yoonu murit ñu fekk si tey sunu xarit sunu lépp muy Serigne Abdoulaye Mbacke borom leer yi te di ko si ndokkeel bu baax di ñaan ñu yàgg ko màggal bu baax si barkeb Sëñ Tuubaa màggal gi nag moom màggal la màggalu ngëneel la màggalu toofeel la ndax màggal la goo xam ne képp ku ko màggal day mel ne màggal nga alxuraan ndax suñu sooy dundam képp si alxuraan la ko mos a def mustam beneen yittee lu dul alxuraan alxuraan la doon dundal ba fi nekkee ba ni fi jógee suñu sooy bu nag waxtaane ko mooy waxtaane lislaam rek ndax dundam gépp si lislaam la ko mos a def kon it ñoo ngi leen di sant bu baax a baax bi ngeen ñu fekkee si bis bi ñëw doon siyaare si Abdou Lahad fekkal leen fi yéen ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax te gis nañ boobu ba tey taxawaay gi ngeen def si màggal yàlla na Serigne Touba taxawu leen ba màggal lépp lu leen si bëgg rek sa borom defal leen lu kawe seen jot si barkeb Serigne Touba bu baax a baax jërëjëf lan ngay wax mbokku taalibe yi lan ngay wax mbokku taalibe yi ak lan nga leen di ñaaxaat mbokku taalibe yi mbokki taalibe yi leen leen gën a góorgóorlu rek gën a amaat pas-pas gën a am pas bu kawe ndax murit li sëñ Tuubaa doon def si nit ñi mooy ñu am yéene ju kawe am pas bu kawe ndax loolay tax dëgg-dëgg murit am ndax murit mooy ki nam ma jëm si yàlla kon nit fee faaw muy dox jëm si yàlla mooy waral ma doon murit saadix dëgg-dëgg loolu nag mooy day am sëriñu tarbiye boo xam ne dala si mën a teg comme lu mel ne kër gi ñu nekk mooy daara kër suñu bu yitte ji moomoon mooy gàttanu ndaw ñi fexe leen ba li li bànneexu bakkan ak bànneexu yi nga xam ne mooy nekk deen gàllankoor mi àdduna mu fexe ba dàq leen te loolu ndaw lañ ko doon def kon bërëb bii nga ñëw tey bërëbu daara la bërëb bu ñuy gàttandoo ndaw ñi la bërëb bu ñuy dimbale ndaw ñi la kon ñoo ngi soññi taalib yi yëpp ñu gën a góorgóorlu ak gën a amaat pas-pas te xam ne Sëñ Tuubaa rek fi nekk te mooy dernier session bi incha allah lan mooy dëgg-dëgg màggal gi dëgg lan la dëgg-dëgg màggal gi nag mooy mooy bis bu ñuy taxawal Sëñ Suwaybu bu mu bàyyee ko fi muy leer goo xam ne àdduna moom dootu ko fàtte ndax ndax may li ma waxoon si tàmbali bi rek jëmmi suñu sowe bu fàttali ko mooy fàttali alxuraan mooy fàttali ko lépp lu baax ndax moom bañ na bi mu fi bi bi nga xam ne ak dundam sax bi mu xoolee bi muy doog a gane jamono ba am fukki at dana day xool waxtu yi mu faatoon yëpp mu faat ko te loolu julli yooyu waru ko woon waaye pas-pas bu suñu sowe bu amoon rek ak yéene moo waroon na lépp am kon dëgg-dëgg màggal gi daal mooy képp ku ñëw rek na xam ne bisub Alxuraan nga ñëw na xam ne bisub lislaam nga ñëw mi mi mi mboolem saaba yi nañ defoon ba am lislaam rek noonu la suñ chooy bu nekkoon ci toolub lislaam ba am ngërëm kon su du woon suñ tuwaay mi ko jur it borom bu kawe la woon daal li nekkoon rek kenn gënu ko mooy dundam gépp si daara ko mas a def te dana ki gën si nit ki mooy ki jàng Alxuraan te di ko jàngale a nekk na nga jàpp Alxuraan ngay màggal ndax mooy yitte ji waaw. rafet na lool. sëñ bi ñoo lay ziar bu baax a baax. dañuy delloo ziar bu baax nag euh, dañoo ñëw fii kër sëñ Cheikh Say moom sëriñ Sohaibou ñu ñëw ci doomu ju baax ji sëñ Abdou Lahad ñu gën kaa xam sëñ Abdou Lahad borom leere ci bisu bi ñu ñaanal yàlla mu yàgg kaa def te yàgg kaa fekke te li mu bëgg ci liggéeyal maamam. Serigne Touba defal ko ndax man na ko ndax daa nekk nit ku baax nekk euh, nit nga xam ne la nekkoon ca lool rek la nekk ndax si euh, si yëpp lan mi yi baayam yi nekk ci tànk yi fa baayam jaaroon foofu la jaar euh, suñ cheikh bi tamit ba ci Serigne Touba suñ cheikh bi nag ñëpp xam nañ ko alxuraan rek moo ko ñaroon ak diine waaw ndax bind na ay téere yu bëree bëree bëri euh, boo gisee njabootam gi tamit yar na leen ci diine ci lislaam ndax loolu tamit la sëriñ bi bëggoon waaw kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yokki leeram te taas ñu si barkeem ñoo ngi lay ziar sëñ delloo ziar bi la sëñ Mahmadan Gueye dal jàmm ñu fekk la ci bisu sëriñ Souhaibou tey ñu fekk la ci guddi màggalu sëriñ Souhaibou lan ngay wax ci bis ak màggal bis bi ñu sant bu baax di sant suñu blaat mu tax ñu teew fi waxte ginnaaw yàlla buñ fi teewee moo tax te yàgg naa te it maanaam buñ fi teew ndaxte dafa denc suñ rek muy soxna Minar Gueye maam looloo tax maanaam ñuy teew si bis waaye suñu blaat jën boppam maam baax na lool te ku yaatu la te it maanaam ku bëgg doomu aadama la ban xamante yàggul waaye li ma xam si moom maanaam nit ku baax la te yaatu lool maam dañuy toog sax maam buñ ko ñuy déggante moo yëkkat téléphone am woom maam ñun ñëpp ñun waa kër ñëpp du somat gépp maam dañ ko dañ koy jàpp ndax maam doomu aadama boo yitte rek doomu aadama boo yitte day am ñëpp te loolu ak suñu borom dénk di ko ñaanal maam am maam fa du gudd loolu ànd ak wér yaram barkeb si Adama barkeb si Adama jërëjëf. sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la baal wax. maa lay delloo ziar di la delloo nuyoo di ñaan ci barke sëñ Tuubaa yàlla suñu borom nangul suñu liggéey barke sëñ Tuubaa. waaye ñu fekk la ci bisu màggalu sëñ Souhaïbou ci wetu sëñ Abdou Lahad Mbacké. waaw sëñ Abdou Lahad day nit ku baax. yàllaa nga dogal sax màggalu sëñ Souhaïbou maa ngi door a ñëw ndax at bu jot Fatick Fatick laa ko daan jàng jee. waaye ren sëñ bi woo ma téléphone mu leer ma ni kon yëfi yitteel ko moo tax ma bàyyi di ñëw wuy si jëmm sëriñ bi ak jëmmi bis bi da yàlla sunu borom yàgg fee teew ci barke sëñ Tuubaa ban am tey bis sooñ soñeeku nga ko daan jàngi sëñ Abdou Lahad wala tey ci wetam waaw yëg ma fi am moom yàlla yàlla rek laa fekk yàlla rek laa fekk ndax sëñ bi ba ñu xamante yàgg na xamante nañ bu yàgg waaye tey ji la yàlla dogal ma mën a tooytu bis bi waaye bi ma fi ñëwee li ma fi gis sama xel sedd na ndax sëñ bi ku ko xam-xam ni nitu dëgg la turandoom la jël muy sëñ Ablaat bu dégg waxtaanam ci suba soññe gi mu def danañ delluwaat ci yàlla tey jaamu yàlla te xam ne àdduna dara du fi sax nañ jaamu yàlla bu baax a baax kon ku dégg loolu rek xam ni ndaw la waaye fi mu teg tànkam ci njub rek la ko teg siraatal mustaqim rek loo ko teg dañuy ànd ak moom it bu ñu xoolee ci moom rek dañuy juum barke sëñ Tuubaa ñu gis seen discours bi mu def dafa ñaaxaat ndaw si ñu delloo siwaat ci yàlla delloo siwaat ci jaamu yàlla en tant que jànk xas jànkatu lan ngay wax ci loolu waaw mooy li ma la wax léegi rek ndax jamono ji dafa jamono ji saayir si seytaane day fëkk gone yi di fëkk ndaw ñi nga xam ne seeni xel dëgëragul seen amuñu amaguñu imaan ndax ku amul imaan rek seytaane da lay da gaaw a xëcc waaye sëñ bi liggéeyam boo gisee li muy wax noonu mu ngi jàppale ndaw ñi di leen soññ ndax soññe dafa baax ci àdduna boo gisee moom li mu wax mooy la ko Tuubaa wax rek sëñ Tuubaa dafa ne rajaaxu jannatin bi laa taxaati bi sunnatil maayil xururiyaati dana ku bëgg a àjjana te jaamoo yàlla ëllëg war nga sa bopp te nekk ci dara nga foog ne yaa ngi ci baax te fekk yaa ngi war sa bopp loolu dara àdduna jaru ko ndax àdduna bi jaar jaar rek la loolu la sëñ bi di soññee jaar jaar rek la dañ fi jaar ngir mën a dem àjjana ndax lépp lu waaye di wut ci àdduna rek dee dem àjjana nga bëgg kon sëñ bi fa la jëmee gars yi ñu siyaar bu baax di ko ñaanal suñu def ko mag di ñaanal Serigne Cheikh Say yàlla guddalu fanam yokk wéram moog doomu Serigne Son bi yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak bitim réew ak fépp ñu ñaan ci barke bi Serigne képp ku fi teew yàlla suñu faj suñu borom faj sa aajo ci barke xasida yi ndax xasida mooy sëriñ bi waaw ndax sëñ waa dafa ne karaamati xatu yëdi fi xidmatin moo a yëdi wa kaana li bil afedi allahuma lil karami sama mbindum loxo mooy sama kiraama kon nag ku nekk ci loolu war ngaa rafet njort bu baax sa diggante ak sëriñ bi te li may soññee bu baax mooy nañu sellalaat jëf yi sellal xol te jéem a booloo koo mën a dimbali ci àdduna nga dimbali ko te yàlla rek tax koo mën a jàppale nga jàppale ko te yàlla rek tax sëñ bi foofu la nekk ci loolu la nekk moom xoolul alal xoolul xoolul borom daraja waaye li muy xool mooy ak taalibi rek lay xool te taalibi moo am solo ñu koy ñaanal suñu borom guddalu fanam wéral ko yokk ay xéewalam te defal ko jàmm biir ak biti ci barke bi sëñ Tuubaa yéen it ñu di siyaare bu baax di ñaan seen seen bi yàlla ko suñu borom ful def ko ay télé télé ba àdduna bi yëpp jot ci ci barkeb sëñ Tuubaa ak xasaayid yi jërëjëf